gisam baax na xolam baax na lewetam baax na xam-xamam baax na léppam baax na wa innaka la ala xuluqin azimin laqad sakkal mawla kullal kulla ma fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lépp la sellal loolu moo tax see ahmadou bamba radiallahu taala anhu bi muy tagg kooku daf ni maqamatu xayri lxalqi an xayri rabbihi mu mugayyabatun faltaqra'an suurata najmi booba taskiye yu bari yooyu nekk ci suuratu mi moom la lay junj boo bëggee xam ay darajaam demal yàlla mi ko bindoon moo ko ko jox yonent bi sallallahu alayhi kon moo gën a màgg ñëpp ña jàkkaarloo woon ñoomit ñoom moo gën a màgg ñëpp moo gën a taaru ñëpp moo gën a lewet ñëpp mu ëpp xam-xam ñëpp kon lu ne moo ko ëppale woon kon li mooy teg ko ca kaw di ko raay di ko màggal di ko teral sëriñ Tuubaa ni ko man daal aw maag yow benn liggéey bu weesu anal xadiimu antal kariimu fii ka uddiimu bi sa sanaayi mbokki jullit yi dégg ngeen arab xam ngeen anal xadimu lu muy tekki haysu xadama damir haada bu jëlee damiram jooju jiital ko soccee teg alkarim la muy teg mooy al asru mooy takk na lépp néew say ni ko yow keppa man daal yow rek ay ku tedd ki yow rek la moo tax dinaa nekk taggkat boo xam ni kenn du ci maaseeg man ci tagg la ndax lan dama koy saxal ba faaw nun noo wax ni bis bi bisu gàmm la waaye maw laa naa Cheikhul Khadim bis yépp gàmm la ci moom maay saxal saw tagg ci waxtu wu nekk jamono bu nekk kon kay yow bis yépp ngay gàmm lan mooy gàmm tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jikkoom ya jëfam ya waxam ya loolu ngay tudd fàttali ko jaam yi ndax kenn ku ci nekk boo fi jógee man ci yóbbuloo dara yóbbuloo tedd nga ja na mu lewete woon sallallahu alayhi wa sallam daawul fayantoo déedéet loo ko def jéggal na la loo ko laaj mu jox la ko waa ja ñëw na poñe ko ba yaram wi na deratal ni ko jox ma ci alali yàlla ju ñu lay séddaleloo alal ji mooy lan asaka yi jox ma ci saxaaba yi jóg bëgg lottal kooku mu ne bàyyi leen ko yëfam lay laaj jox leen ko ba mu doyal jox leen ko ba mu doyal ko gën a lewet ku ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a baax ku ne kero ba ko ay noonam jële di ko sànni ba dama bëñam xaañ ko lu mu wax allahuma ixfir li qawmi fa innahum laa yaalamuuna yàlla sama gaa yi jéggal leen rek dañoo xamul waaye bu ñu xamoon ni may rasulullahi may ndaw li ñu tànn du ñu ko def kon jéggal leen te jéggale nag du ñu ko tudde jéggale lu dul ba nga manee fayu te moom mën naa fayu am na ku nekk ci ginnaaw am ku bari doole koo xam ne na mu ko bëggee la koy defee bu ko neexoon tukkal àddina waaye teewul mu ni ko jéggal ko jéggal naa leen sang noon lay mel ab sang day jekku jéggile waaye li wolof baaxoo wax tey nga xam ne maa la gën a maa la gën a moom kenn du ca teg lu dul maa la gën a baax boog loolu rek nga war a na wax waaye tey nga xam ne maa la gën a soxor tey nga xam ne maa la gën a bon tey nga xam ne maa la gën a nangam loolu day du jikkoy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu du jikkoy gaa yu baax yi itam kilifa gu baax waxoon na ko ba muy dénk doomam mawlaana cheikh salih ibnu mustapha ibnu xadimu rasul wa saamih aqan in salla waxfu karamatan fa man nat bu illa man afa inama qadar nee na sang mooy ki mën a fayu baale rasulullahi noonu la meloon kon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki gën a baax ñëpp waaye yàlla yi teg ko fu mu tegul kenn jox ko respect bu doy ak li mu koy yilif lépp du sàllalu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lu dul fii maaradil xusuma muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu koy wax day indi fonction bi mu nekk yaa ayyuha nabi yaa ayyuha rasul yaa musammil yaa mudassir lii awsaaful Mustafa lañu keneen kudul moom yàlla jaar na ciw turam yaa aadam uskun anta wa zawjuka aljanna yaa yaxya xusil kitaab yaa zakariya yaa daawud ñu bari daraja lañu waaye yàlla nee na bokkuleen ak kii mooy seen jaatige kii kenn du jóg rek jaar ci tur wi te ku jaar ci tur wi war nga koo tagg war ngaa julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam nee na nay benn la ci xam mooy koo xam ne bu ñu ma tuddee du julli ci man lu ko waral kooku daa iñaane boppam loo xam ni boo ko defee yàlla defal la ko boo jullee ci moom benn yàlla julli ci yow fukki yoon loolu ku ko xañ sa bopp yaa gën a nay ñëpp am nay day xañ ñëpp waaye day xañ boppam la jëkk a xañ moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ni ki gën a nay ci àddina mooy ki nga xam ne nii bu ñu tuddee du julli ci man kon nañuy julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam moo tax Serigne Touba moom ni moom dundam gépp da koy julli ci moom rek far salaatu sitta bi mat i sitta taatihi ba tamaatisayi juróom benn weer yi may dund ci at dama koy julli ci rasulullahi juróom benn weer yi ci des dama koy tagg rasulullah ndax tagg dafa am aslu fil quran yàlla tagg na yonent bi ba tey wa naka la ala xuluqin azim tagg mënu koo féete kaw wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun yuha amul tagg wu ko gën kaw yow mi la wax dëgg la boo doon tagg sa giir mënoo koo wax lu loolu te ku ñu ko taggee nag bu yeboo nga yëkkati loo bokk bokk nga ci ñi koo xam ne lu wax dëgg la cey ku ñu ko waxoon ci Sénégal te ñëpp gëm ko ñu ni kii lu wax dëgg la bu ñu ko waxee muy dëgg te ñu gëm ko daraja mënu koo gën a tee kawe loolu la yàlla wax yonentoom bii mu yónni woon ni ko yow loo wax dëgg la ni ko ku lewet nga itam doo jël sa doole teg ko ci kenn fa bi ma rahmatin min allahi linta lahum da ngaa nooy nepp ba tax nit ñi nangu laa wër boo waxee ñu ñëw wuy si la ngir doo jànnee doo xaste doo dóor doo saaga da ngaa nooy nepp mu ni ko boo ko deful woon nit ñi kenn moomu leen dañuy dem bala kooku mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla jox ko melo yoom yu tedd yooyu yëkkati ko ci kaw jaam yi moo tax ñi xel lu ñëppit def ko noonu di ko màggal nag bu juddi bis bi ñëwee bis bii nga xam ni sallallahu alayhi wa moo ko jëkk a màggal keroog ba koy woo benn arab yi da koo laaj ni ko waa lu tax ngay woor bisu altine mu ni ah kay yawmun wulidtu fiihi wa yawmun unsila fiihi alay bis bii ci laa gane àddina bis bii lañ ma wàcceel alquran kon bis bu rëy la salaamun ala yawma wulid ñaata yoon la ko ab yonentu wax di màggal bis bi mu juddoo wane ne bis bi ma juddoo di bis bu neex la bisub jàmm la bisub xéewal la kon rasulullaay bisam yemut ak bis yi bis boobu nga xam ne keroog iblis moom xam na ni yemut ak bis yi ndax ran na keroog rannatan azima bis boo mu juddoo keroog iwaanu kisra xam na ni yemut ak bis yi ndax pey ba la mu doon rëy rëy màbb na keroog bis boobu keroog ba mu juddoo aynu saawata xam na bis ba ndax ndox mañ doon jaamu keroog la ngiis sawarawa keroog la fay bis boobee kon ràññiku na ci biir bis yi kon bokk na ci pertement bis bi ñëw te yëgoo ni bis la sëñ Saaliwu ko waxoon sëñ Saaliwu nee na moytul bu mag gàmmu ñëw nga yemale ko ba a jiitu ak ba ca topp nee na loolu musiba la kenn waru koo def saa bu ñëwee wan ngaa wone ni bis bii wuute na ak démb te dina wuuteeg ëllëg waaye nag ma ni ko ah, sëñ bi nit ñëpp wuy si nañu sa woote boobu ñëpp a ko def am na koo xam ni bis bi daa màgg ci moom ba bis boobu day fanaanee tudd borom bi di fàttali ko yonent bi di fàttali ko ay jikkoom kooku yemalewu koog démb yamalewu koog ëllëg am koo xam ni bis boobu day teel a tëdd lekk lu naqari ngir wane ni damay bañ a gàmmu kooku yi yemaliwu koog démb yemaliwu koog tey dañoo bokkul aw defin rek te démb béggoon na tey day mer am na ñoo xam ne bi gàmmu ameeg léegi ñu ngi xuloog nit ñi gàmmu bi daala gàmmu bi la moo discours yi teen koo jëme woon ci li xew ci àddina ni fen baree nga indi lay ni fan bone ndax nit ñi bañ bàyyi fen ni jëw bone ndax ñu bàyyi jëw rambaaj ni mu bone ndax ñu bàyyi rambaaj yooyu ponk yëpp nekk fi waaye yi nag mucc nañ ca noonu noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak xariti yonent bi ku ko noonu da ngay farak ña ca des ña ca des dañuy mucc ci yow yéefar yi sax dañuy mucc saw yow aay yi ñu wàcce woon yëpp di ci tudd ab yéefar yéefar tey jël na conseil deesatu ko ci tudd kiñ ci tudd kenn la mooy ki wuuteeg yow kon bis yëpp wute na moom kon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ab bisam ñëpp yëg nañ ko daa wute ay yégin rek kon bis boobu fi mu feeñe xam na mooy bis bi ban la makkatal mu karama keroog ba mu feeñee suway batu ñëw nekkoon jaamu abu lahabin di bay tax ci yonent bi bëggoon ko lool dañoo bëggoon yonent bi waaye booba daa wooteegul dañoo xam ne innahu rajulun saalih rajulun amin ku baax la ku yiw la ñu bëgg ko waaye nag ba mu jéemee defar wala ma kaana rajulan muslihan ba mu jógee ne damay defar nag la gaaye yee wàññeeku gaa yi bëgg nañu waaju baax waaye bëgguñu koy baaxalaate bu ñu fekkee waaja ca jàkka ja mu jàng Qur'an di julli ñaar rakka di fanaanee sikar aka baax kooku de war naa koo siyaare ji waaye cey bis bu teree nit ñi bu leen nee bàyyi leen nangam lii def leen nangam lii baax ga amatul ñu tàmbalee seet xeer yuñ ko sànni ndax dafa nekk léegi dafa jóge ci daraje darajatul saalix jëm ci daraje yi muslih muslih nag ku fa taxaw bu yeboo nga kar xeer yi xeer yi day ñëw xaw ma nag diñ ko ñemeem déet dañ duñ ko ñemeem déet da ngay ñeme nag ñi fi daan sànni yépp loo xam ne nii jubbanti la dañoo ñeme woon keroog ba suñ bàkki bu sey wax naa ra'ay naa munkaran fa ankar naa wala ubali gis naa lu bon weddi naa ko te du ma geesu du ma geesu ñi ko ñemee bariwuñ wuñ du mbokk yi gis lu ñu war a tere nga tere ko wéy loolu jafe naa def jàmbaar a koy def ku bëgg rasulullah moo koy def foofu la nekkoon Mawlana Cheikhul Khadim dafa bëgg rasulullah yi bañ lool ku bañ rasulullah moo tax bokk na ci ak taalibe ngay tagg yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci ak taalibe nga bëgg yonent bi bëgg waa këram ndaxte Serigne Touba da lay bëgg ñoo noo ji xaritam di ñoo di ay xaritam keroog bi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg gu yóbbu ko ci mu xaabaabal ba xaw fàtte ñi nga xam ne moom la àndaloon. ayaa xaadima almuxtaari laa tansa saabahu fa man yansahum fal matu matun muxattau nee na yow xaadimu rasul bu lab ci sa waa ji rekk di wiy tagal ñi mu àndaloon ñi mu àndaloon liggéey bi ci lañu tuddu leen nag laa tansa saabahu fa man yansahum fal matu matun muxattau nee na tagg wéppoo leen tagg te gaayee bokkuñu ca amulu tagg ndax yonent bi bégul yonent bi li li muy bégloo mooy nga kañ gaayam yi moom kañ na leen sahabati kan nujum sahabati kan nujum bi ay ayihim iqtadaytum ihtadaytum lu gën a rëy lii sama sahaaba yi yéen ñi bu ma dee weer yéeni biddiw yi ku leen roy baax na ku leen roy baax na lu muy tekki ku leen royul baaxoo kenn du leen yemale kenn kenn loo tagg-tagg waa ji Sëriñ Tuubaa nee na fas yañ doon jaabal di xare pour ma doon génn ci seen gémmañ moo gën waaja ngay tagg xoolal kii fi mu yóbbu saxaaba yi ridwanullahi alayhi foofu la leen yonent bi yóbbu ñoom itam sallallahu alayhi wa sallam ñoo ñooy gaaye moo tax mu ni wan taggal ñii mu tagg ko tagg Abu Bakrin wa Omar wa Ousmane wa Aliyun ak ñeneen ak ñeneen ku ci nekk mu jox la saw saw les digal gaa yi ñu tagg leen kon nañuy tagg rasulullahi bu gàmmu jotee ñu ni nañu gàmm ñu ni gàmm day bidaa la ñee gëm ni innaha bidaatun walakinaha bidaatun hasana am ñu ni bidaa yépp a bon kon gàmm bokk na ci yi bon allahu akbar maa ngi tuub sax baat bi ma wax ak a baax bu fekkee ne lan mooy gàmmu ñu ni ko li ciy nekk li liñ ciy def lu ci bokkul lu ci bokkul da cee war a dañ dafa war a dañ sëñ Touba dindi na ko ci moom doo ko waxal lenn lu dul ni gàmmu normal la doon normal la doon gàmmu mooy lan taazimuhu bi sunnati yaquuduna lil jannati bi isdiyaadul minnati li muxlisin muasami nee na màggal leen juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci anam gu dëppook sunna mooy tagg jikkoom ya wax meloom ya ngeen di ko bakk di ko teral di teral ña koy def lii moo dëppook sunna def leen loolu yal yàlla teg ca yoon wa te dëppaleenoo bëgg-bëggu sëriñ bi nu gëm ni sëriñ bi kii rek la bëggoon kii rek la nekkoon nangoo nekk surgaam nu nu nangoo nekk ab surgaam te nekkee ko na mu nekkee woon surgëb kooka mooy lu mu bëgg mu def lu mu tere mu bàyyi nu it lu mu bëgg nu def lu mu tere bu nu fa jige lii mooy nekk soppeb Sëriñ Tuuba yal ko yàlla def wa sallallahu wa sallam ala xaatamil anbiya wa imaamil mursalin amin ya rabbal alamin